jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV dakaar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy vidéo demuma demuma ca guddi ga laa dem bi ma defee xaar ba mu ñëw moom Serigne Moustapha

déglu naa li capitaine wax wax bu am solo la gis nga sagal sa baay loolu aayu koy dom ju bax xam nga lolu mbay doon de koy sagal sa bay lolu ayu koy dom ju bax xam nga lolu parce que damay wax rek ah. xaw ma nag euh, moo ne ci xelamam déet damay wax rek ah. na leer boo toogee sa doom wax ñu ñëw ci teraanga ñi mu àndal ci chaise ci lu ba pare yëkkati alal jox la man man jooy naa ci fi ma ci jooyee mooy fi mu ne ku ñu gis amul keneen foofu li mu doon doon xaleel yëngal na xol yu bari te dalal na xelu baayam dalal na xelu baayam ndax doom bu jëlee engagement bu te du wax kese mu jiital jëf teg ca wax sa xel dana su wax jiitoo jëf doog a ñëw xel dal su wax ñëwee yem fa xel du dal xaw ma dégg ma wala déggu mais xale bi jiital na wax mu am solo torop mu wëlbateku teg ca jëf te ah euh, dañu wax ne euh, liy dëggal wax mooy jëf alfialu misdaaqu lisaan jëf mooy dëggal wax soo waxee ba tuur nit ki ba mu fees dal mu toog di la déglu la nee daf may fontoo waaye xale bi muy maam Cheikh wax na wax ba am solo jox ko baayam baayam déggul ko attentivement matériel ba mu tudd lépp ak la nga xam ni indi na ko ci alal jébbal ko ko loola dëggal waxam hmm. al fialu misdaaqu lisaan hmm. mais su doon waxi kese baayam dana tiit waaye dafa jëf dafa wax moo tax euh, sëñ Moustapha jooy sikk nekku ci la ko jooyloo fa gis nga nit nit dafa bariwul kàttan nit lu tuuti rekk da koy jooyloo ti am na fooy yegg ci yëg-yëgu mbir dootoo moom sa bopp jooy rek ay moo fay sas moo tax mu jooy ci li xale bi def jëf na wax na lépp méngoo na wax bi mu ko wax am na sol yàlla na ko yàlla dimbali bu mu juyoo baayam yàlla na ko yàlla dimbali bu mu juyoo yàlla na ko yàlla dimbali moo ay rakkam ak ay bokkam buñ ak mbooleem mustarchid bu fi ne yàlla bu juyoo bu yàlla bu ñu juyoo ak moom gis nga liggéey dafa métti te gis nga responsable yu mel noonu da leen di ñee fekk ñu ngi bëgg a dee ñu ngi bëgg dee ndax liggéey beeg coono yeeg fële nit ñiy dëkkal ak mais man su ma doon sëriñ mu damay wut ko ma tëggal sabar ma fecc ko ba naaw li mu am mais nag yàlla mooy def eh, ki am ki am dara mu xam li mu am ñi ko topp ñooy xam eh, ci jamono ji ah waaye yow lu muy bëggati Moustapha ku ko ku ko bañ bañuloo ku ko noonu noonuwoo ko ku ko soxore soxorewoo ko maanaam dangaa bëgg a mel ni moom te mënoo mel ni te moom bëggu la mel ni kenn ah waaw mais kii lu kii lu ko lu mu deseeti bay waratu waratu la xalaat sax dara yow koo xam ni alal neel benn alal mbooloo xam-xam lépp a ngi ci loxo sa loxo lépp a ngi ci sa loxo looy soxlaa keneen ki ngay xoolal koo xool may nga ko chance koo wax ci moom may nga ko chance parce que fi tollu yegg nga ci plafond bi yàlla may na la xam-xam yàlla may na la am-am yàlla may na la mbooloo mbooloo moo xam ne yow rekk la gëm gëmunu kenn gëmunu kenn ku yebu xam ko ku dul moom mbooloo moo yor sëñ kër Si la gëm mais ñoom ci sëñ Moustapha la est-ce que comprendre nga li wax ci sëñ Moustapha lañu ñu yem Moustapha nag moo xam ku muy amal affaire loolu mooy taal sa sëriñ doo ko uuta sëriñ na nekk sa sëriñ moom mooy ut sëriñam moo xam mais sëriñ Moustapha ci jamono yi ñu tollu ak jamono yiy ñëw ak ba ba àdduna tukki su meree te wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla yàlla jéppi ko bu merete yàlla jéppi ko ci jamono yi lu muy mer ku muy xulool ku muy wax jëmee ci moom ku muy xas yemb na yow koo xam ne li nga yor li nga yor soo noon bëreet di dem li lay dar ci oto yow rek la lu soo yeggee fa nga jëm la ngay wax ci xam-xam yow rek la ci yow rek la ne ilmi maay ay suma kunt yet ba on nga seet loolu lañu ñu fay financé nga génne sa poste moom du sëriñub laaj àddiyee du sëriñub eh, yaa may waxal xam-xam am-am yàlla may na ko ko am mbooloo sëñ Moustapha daal léegi su ma gisee mu mere nit dama koy mere. jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy vidéo